jërë ngeen jëf mbokki internet yu RTT TV ñi ngi amaan mbégte ak kontaante saa su ànd ak ci suñuy programme ah. ñi ngi fii tey jii ci R100 war fee jël benn xale benn ndaanaan champion muy Samba Laobé numéro 2 war a bëri journée Siri Diakhaté xam ngeen ni le 29 mai la waroon am mais li xewoon Tiwaawoon moo tax ñu reposé ko ba euh, le 11 juillet bii nii mu war a am fële ci hippodrome Ndiaw Macodou mais dañ koy jël si rek ci entraînement ñu gis ko fii mi ngi ci biir salle bi mais dañuy dugg ci biir seq ak moom waxtaan laaj ko nan lay préparé le 11 nan lay waajee bis bi ak i mbokkam ak Karara Junior gis ngeen jëli woon nañ Karara Junior waxtaan moom mais tey Samba Laobé numéro 2 la ñuy jëlee tey Seck laa àndal moo nekk ci kanam bi kaa dugg ci biir kaa dugg ci biir jël Samba Laobé numéro 2. aja jërë ngeen jëf mbokk yi internet yu RTT TV ah nañ leen ko waxee woon rek gis ngeen bi ñuy dugg si ci ci bunt bi tey xale bi ñu jalal muy champion di Samba Laobé numéro 2 di ndaanaan Samba bi numéro 2 yaakaar naa boo ko waxee rek sa xel dina am lu bari lum la jox mais loolu dañuy bàyyi ba ci biir rek ñu dugg ci waxtaan yi moom directement parce que gis ngeen ko la 11 juillet la war a bëree digganteem ak Karara Junior di ñaari xale ñaari ndaanaan nee naa leen ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne benn combat nga am benn victoire te ñoom ñaar ñëpp ci saison bi passé lañ bëri seen premier combat mais bala ñoo sori rek dañuy bàyyi suñu invité mu nuyoo muy Samba Laobé numéro 2 maa lay. bisimilah Kara 11 billah bisimilah mi yàlla jërëjëf borom Touba. ñu ngi leen di nuyu seen teewaay fii xam nga xam ni kontaan naa si trop di nuyu sa man Seck nga xam ne ñun royukaay la si ñun si làmb ko di nuyu waa kër Sëñ Ablaye di nuyu cees xam nga di nuyu waa kër Sëñ Sall Touré yi amul ñu dul ñoom di wax ni combat bi jël nañ ko jébbal leen ko te xam ne lépp luñ si def rek ci kàttan ñu ngi leen si yaakaar bu baax a baax a baax di nuyu waa Touba xam nga di nuyu waa Kébémer Jantal Mara Amdi Mbaye xam nga du ma limee damay juum ko waa mais képp koo xam ne nii di doon ko jullit ñu ngi lay jox loxo di la xama jox sa waay daal noonu nga demee. ci la ñuy jaar rek nuyoo waa ersan yëpp di leen nuyu di leen ziar bu baax dañuy nuyu ku mel ni grand Amadou Diouf. waaye di nuyu ku mel ni champion bi building ah di ko nuyu di ko ziar bu baax di nuyu et Pambay bu r di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax di nuyu waa xamlo sëñ Abdoulaye yàq mi yëpp di nuyu également grand Khadim Sarr Khadim Sarr président de manager yi di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax bala ñoo seet rek dañuy dugg ci waxtaan bi directement ñuy nuyu ñi nga xam ni euh, ñi ngi ci internet bi yëpp di leen nuyu di leen ziar bu baax mën nañ cee lim ku mel ni ku mën nañ cee lim ku mel ni El Maxtum di ko nuyu di ko ziar baax parce que gis na ñaari vidéo buñ dugal rek dina commentaire waaye également di nuyu ku mel ni grand Gora Samb di ko nuyu di ko ziar baax di nuyu Penda Dema di ko nuyu di ko ziar baax a baax waaye Assane Diagne di ko nuyu di ko ziar baax a baax El Matador maa lay ziar baax a baax grand góor a waaye ñoo ngi koy nuyu di ko ziar baax a baax parce que ñooñu ñaare vidéo bu ñu dugal rek dinañ ko seetaan ba pare commentaire di ñaan gaa yi ñuy gën a abonné gën a ñoo leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal Samba Laobé numéro 2. Samba Laobé numéro 2 kañ la dugg ci làmb. Samba Laobé numéro man presque ci làmb laa yoroo de man moom mooy dugg ci làmb yàgg na mais dama toll benn instant boo xam ne nii nag dama xawoon débranché wu ci làmb quoi. lu waraloon loolu. ndax parce que xam nga rek yëgatuma si woon sama bopp ko xam nga lépp loo gis lu nekk rek daa lu ko waral Samba Laobé li numéro 2 li tax mu duggaat si làmb xol bu jeex la ko moo waral xol bu jeex. non <laughs> loolu ay confirmation la mais way wax daal billaahi ah, billaahi ku xam Samba Laobé numéro 2 xam ni seen kër làmb yàgg na fa parce que bu ñu nee Samba Laobé numéro 2 yaakaar naa xel yu bari dina dem ci Balla Gaye parce que digganteem ak Balla Gaye kii ñu toogal rakk sàmbalaw bi la mu mag sàmbalaw ba numéro un ngeen gis tàkkusaan gam ak Balla Gaye ñoom ñaar ñu bëre lu doy waar ñoom ñaar sàmbalaw bi numéro deux mais léegi gis ngeen ko mi ngi Europe ñoom itam ñu ngi koy nuyu au di ko nuyu di ko ziar baax a baax sàmbalaw bi numéro deux di sa mag nekkoon ci làmb ba mu yàgg mu bàyyi làmb yow nga ñëw jël relève man xanaa xam nga bu ma nekkoon si làmb ba tey du war mu bëre booy sax mais xam nga rek toog naa cinq ans yoo xam ne ni bëriwu ma ndax xam nga rek comme li ma lay wax léegi waaw man camp social moom ma si làmb te booy bi maanaam waaw nañu yàlla dolli sutural ba jour ba barki Muhammad la kenn du waruma gën ci làmb mais dama ne làmb ju dàq ci làmb ji ba fii ak deux ans ba keroog may waat doon amaat làmb ju mel nii. lan moo waral loolu. non adversaire bi la wala wala li laxas ci ginnaaw làmb ji la. non pas lu laxas ci làmb ji mais nee na làmb jànq la mais pour man du làmb jànq booy bi maa mag bëre. maa ko ëpp ndax du bëre barki Serigne wu Mbacke lépp lu làmb di laaj maa ko ëppale mais dama bëgg maanaam amateur yi séentu naan làmb ju neex la maanaam. ngeen bañ leen a la làmb ju neex lay doon de. mais booy bi moom dafa mel ni man bu ma digloo ay waxam seetaan seetaan nga interview am. non seetaan gis nga ko moom nawloowu la ci kaar bu bëri moom. cadre bu bëri moom nawloowu la ci xaw ma lu waral lool nag xaw ma doole ji li mu liggéey xaw ma muy génn di compétir ci àll bi moo waral lool xaw ma lu waral. dëgg la xam moom moo tal lool tamit quoi moo tal génn si àll beeg affaire yooyu noonu ñun lépp lu ñu war a def si làmb def nañ ko fii Thiès. bëri na fi champion yoo xam ne ñu bëree grand combat leen a booy bi seen waa ikiri cet ba cet mun naa ne jàngal bëre barki yaa rasulillah yow mi ah, est-ce que xam nga ni sama yaram loo si laal day bëree seetaan naa sa combat ama kay bu mboora moom loolu fi mu la yegg fépp loolu du combat loolu loolu sarax la rek bu jàll barki Modou Moussa Fall bëreeguma kara barki Serigne Saliou Mbacké te sa diggante Karara Junior nga ko war a wax. Karara du loolu lu làmm xam moo tax lu lam kooku damay xeex ak moom du ay ñëw ay jàppante bëre de. kooku damay rayante ak moom ba stade bi yëpp jug taxaw ak toog samay tànk suulu. non moom itam moom nee na xeex mënul ñàkk seen diggante faaw ngeen ñamante. loolu mënut a ñàkk Karara loolu. laay la lool biti la faraat man ak moom dañuy rayante ba àdduna yëpp jug taxaw ma jàppul la daan la jëla bu rëy comme da nga yor sa làmmi wax du man ak yow man ak say mag lan seen écrit dama na la ñoom ñëpp bu ñu tagoon ngem bu rang barki Serigne Saliou mu daan leen par kenn ku nekk manière laa lay daanee. seen écrit seen écrit ba mu daj ku nekk manière laa lay. ku ambulance nekk. Alaaji Gaynde nekk yow. <laughs> cere càq man ñun daan ñooñu dama leen a daan tër. xanaa dama ne la làmb moo xaw a tëre rek. ndax ñun toog nañ benn cinq ans boo xam ne nii bëriwul mais ñun bu ñu tegoon suñu lamb bu ñu ko tegoon si yoon heure bi nii waruñu bëree sax booy yi nii. parce que sëñ Tuubaa li ma jël booy bi nag daam loo xam ne dama ko bëgg a wan nit ñi ndax parce que ñu bëri dañoo yaakaar ne man dama duggaat si làmb ngir ay ambiance yooyu noonoo non dama ñëw ngir jël li moom moom. Kara barki yaa rasulillah waaw bu ma neexoon jël si yeneen booy yi ndabar ndabar tan te damay damay waaw mooy loolu mais li ma ñëw xool booy fi gën a ës ma jël ko dama bëgg a wan waa Thiès ni man fi ma bëgg a dem ndax ñi ma wëbb nii may bëreel nii du samay maas de barki sëñ Tuubaa Mbàkke ñii duñ duñ samay mas de kara man li ma jaaxal seen combat yéen ñaar koo ci dékk mi ko rek mun la samay morom ñoo mënu nguut a jël moo tax ma wëlbati ko jël lii booy bi man dama koy yërëm ndax dama xam ne ndaw la xam nga te xam ni sportif la quoi te nit bu tollee si ndaw bu tollee si sport maanaam dafa war a compétir daal ma ñeewantal ko chaque jour ma koy gis saalu si di jaxate ma ne kii pourquoi pas xamum war a mën a bëre tamit quoi te mu doon xale sport ñun ñëw bokk Thiès kara gis nga affaire yi du ay noon du ay loolu tamit du na quoi nga fekk xale boo xam ñëpp dañ ko fee bàyyi nee nañ yow nga ne nga ne da nga koo yërëm. kaa <laughs> bëgg laay laay la kanam man dara du risque ci man c'est que am ñu bëri ñoo xam ne dañoo xaw a um dañoo dañu ma xaw a umpale quoi te loolu sax dafa baax man barke Sëñ Tuubaa xamuñu ma à 100 pour cent. maanaam bi làmb di neex dëgg dëgg dëgg dëgg ngay bëre bari na ñoo xam ne seetaanuñ la te bari na boo ñoo xam ne maanaam boobu commencé gu ñëw bëri. loolu nga bëgg a leeral. non pas commencé wuñu bu kanam man tout temps que la man dama teel a xam nga boo yaroo si axlu làmb ëttu làmb teela a daan ay mbër yu mag ñi fiy bëree grand combat yëpp dama leen daan de te combat yi xaalis bëri la ñu fay déggoo ma de mais dama toll benn instant boo xam ne dama xaw a débranché ci làmb ko waaye mais comme li ma lay wax léegi ñun maanaam tollootuñ foo xam ne nii ci làmb dañ naan kii la ñuy jël kee la ñuy jël ndax dafagun dara si làmb xam nga kan mooy taamu kee laay jël ak kii jël ki def dara si làmb dama ñaan yàlla def dara si làmb te incha allahu rabi le 12 bu arbitre ne prib karaat yéen ñëpp di ngeen kontaan barke sëñ Tuubaa booy bi neen dafa mën a bëre nee na moo ëpp doole ci <laughs> sëñ waaw. dégg nga wax sax ci interview bi nee na ma ne ko Samba Law bi numéro mu ne ma xaw ma keccax bu lan la. boo ko bu xamee mu tas man daal xaw ma lu wax a wax ba bàyyi. waaw sëñ Fall moom comprendre su walay comprendre yàlla baax na xam nga nit ñoo bokk suñ Cees daal am na wax yoo xam ne xam nga rek jarul di dëkk sëñ Ablaye kenn du leen woo si guuxum soow yaa ma gën a xam moo tax man lu lépp lu may bëgg rek dama bëgg ñu koy def si discipline xam nga def ko ak taalibe daal ndax man dama dëgg si koñ boo xam ne nii kenn du leen woo si ay ay xeex ak ay xam nga loo tax man booy bi ndeysaan dama koy xool rek xaw a sama yaram xaw a daw daal ndax ñoom côté boobu noonu li ñu xaw a jël nii ñun dépassé nañ loolu ndax ñun Thiès dafa xat. mais dafa ma ni combat bi combat diir bi la. diggante r ak ak ak ak ak ak R100 diggante R100 ak Medina fële kaw kaw nu mu doon taaxe kaw. noonu la demee fee gis na diggante bi ku fi bëre côté bee rek combat bi day xaw a métti ndax lamb moo moo xas boo xam am nu ñu jaxasee daal. moo tax combat bu ñu si mun di jël rek nii lay demee mais combat dër bi la mais booy bi dama ko bëgg a xamal ni maanaam mu xaw a am mu xama rek fayu ñuy million fayu ñu yenn yoo xam ne ni jarul di influence say supporter daal te Cees dafa xat man dama dëkk ci koñ boo xam ne nii maanaam Thiès ñëpp xam na ni kër Sëñ Ablaye murit ga ku leen woo si affaire rek guerre rek nan rayante da ngay pëttax ndax ñoom yaa ma gën a xam mun na noo wax ni yooyu bu amee Thiès kër Sëñ Ablaye la juddoo moo tax dama leen bëgg man bëgguma woo samay supporter kenn si xam nga si ay violence ak yooyu ndax ñun taluñu lool daal xam nga. dañu ñëw man keroog doon ma génnal jaasi bu signature bi tasee barki Serigne Saliou Mbacké. billaay wallaahi wa taala kar na ma. Mm, li ma jaaxal seen combat yéen ñaar. maanaam commencement bi yow ak Karara la woon rek mais heure bu ñu xëyee am la neen lu ciy yëg parce que signature contrat ba gis nañ keroog ñu digg ba ngeen war a euh, para euh, nekk ci préparation yeeg war a war a war war a séq waxtaan ñu jékki-jékki gis alaaji gaynde jóge fële ko bitam biteelam teguñ ci cinq minutes ñu gis Baba Gàlla ñëw gis building ñëw combat bi mel ni maanaam dafa am ñeneen ñuy bëriwaat ci ginnaaw ñu bokk dañ yéen ñaar kese waaw xam lam Karara booy bi man ak booy bi ku si daan rek maanaam làmbu Cees da lay gën a bàyyi xel daal loo tax làmb bi xam rek ñaari camp yëpp soxla ko daal di sa comprendre moom nag ndeysaan man bëree wala bëreewuma pour nit bëreewuma pour man nee naa la Kara social moo ma dugal si làmb te balaa mbër di ma tër Cees di nga wax lu set barki Serigne Salim Mbacké ndax maanaam gëm-gëm moo moo moo yomb si nit te man dama am dama am gëm-gëm si lu may def xëyuma gontuma xam lan mooy sama xëy. xool mbër nu mu koy tëralee fu mu toll nii amoo benn temps booy bi nag na dem fu ne mbapat yi ñun ay borom kër la yaa ma gën a xam ñun li nii mbapat mbapat nañ ko ba pare heure bi nii ñëw liggéey suñu bopp si làmm moo ñu tax a jóg mais ñëwuñu ngir ay taasante ay teesante lu ñu si làmm nag du lii ndax ñun Thiès lañ dëkk te Thiès xam nga talu ñu fee nekk di créer ay yoo xam ne ni ëllëg si biir yoruñ luñ téye kenn hôpital yi se comprend moo tax man combat bi dama bëgg ñëpp ànd ak dal te xam ne man ak booy bi la man am na ñoo xam dañ may kar marché sax di ma saaga di di wax yoo xam ne nii maanaam dama leen di ree rek bàyyi leen ci biir man nit mënatuma xooxatal sama live ndax man dama dundul tar dama ndongo dara laa est-ce que comprend maanaam dama ñu xam ne làmb ji man ak waay bi la te bëriwul grand combat fay ñuy million est-ce waaw mais. est-ce que loolu da nga koy wax pour Youssou Mayenam rek. Youssou Mayenam booy bi xam na ni moom moo la gën a xam booy bi ni ma war a jàkkaarloog barki yi yaa rasulilah dañu doon nekk din ba muy yéeg may yéeg. xam nga kay wax na ma loolu ci interview bi nee na ma Samba Law bi xam na ma bu baax di ne la ma naan fekk fa la ma naan bàyyi. moom booy bi booy bi du tërën barki yàlla du tërën. booy bi gërë te booy bi kanamam gi yëpp deret la du ma ko jàppee mu xam lépp dëgg la xoolal booy bi yaram beeg kii man ku may bëreel na nga doon caas déggoo ma de Kara booy ku ma siy si yow nga doon caas der mais boo andee graisse gu bëree kanam góor rafet barki sëñ Bamba Mbàkke or bi yaa lu leer laa lay teew bi xam na mu baax dañ doon daje din ba mos ci gu xool ma déggoo ma de mos na ñu am fitul ci gi xool ma. kon daal micro bari rek ak nit ñi. bala douze incha allahu rabi xam nga tamit wax waxaat bari wax la daal te ñun xam nga amu amatuñ droit def erreur si làmb xam ndax li li topp suñu ginnaaw moo bëri. xam nga nag am na yoo xam ne nii ñoom ay balla xañaaral dañuy taxaw wax déggoo ma de man avant le le vingt neuf la ñu waroon bëre. Mhm. avant le vingt huit xoolal verser naa samay bee man nekkuma si télé yi di ndal ndal yi ma nee naa daa am lu mu fu ma jëm te fu ma teg sama bët dafa leer. Kara amul benn mbër mu musa a dox avant semaine combat nga verser say bee. te defal nga loolu promoteur bi. barki Muhammad Rasulullah man talu may wax instant dama bëgg a loo xam ne nii maanaam. bu mënee der nan xam ni kii daa am lu mu wone daa am lu mu bëgg. sa sa mag bi nan la koy dundee période bi Samba Laobé numéro 2. waaw Samba xam nga Samba moom moom ndeysaan moom mu ñu wax si moom sax ndax taxaw bi ñuy taxaw daal ndax parce am na lu bari loo xam ne boo ko teggalee nit rek loolu maanaam ak jamono ni mu mitee nga gis gars yi xam nga su suma sama moromu jeunes yi parce que sëñ Tuubaa des fois damay jugee entraînement mais sama yaram sax day daw ndax gis gars yi dañuy may waxaat ñun suñu àggut fenn quoi mais ñuy waxaat gars yi ñu gën a jàppale jeunes yi barke sëñ Tuubaa Baye Kara réew mi dafa miti billaay wala wa taala Kara demal marché yow yaa ngi si marché bi dugal si dëkk bi nga xool gars yi lañuy daj ñun suñu baat àggut fenn mais dama bëgg gaan ñi nga xam ne nii ñoo war a mën a jàppale doomu aadama ñu jàppale leen ndax gars yi ñuy dund dafa tar barke sëñ Tuubaa suñu baat àggut fenn mais danoo bëgg li ñuy wax ni mu àgg fu sori ndax parce que jeunes yi fu mu toll nii maanaam koo si gis da koy yërëm sax barke sëñ Tuubaa ndax waxuma la problème boppam rek mais li nekk si boppam waaye ngeen gën taxaw doomu aadama yi Samba nag maanaam moom dafa doon nit koo xam ne nii bis mënu ko dépassé ndax moom mun naan teraanga mu am yëpp si lamb la ko amee. làmb tax mu voyage làmb tax mu am li mu am kon maanaam moom lenn rek la may wax utal doole ndax maanaam ñi nekk si làmb yëpp say naw la lan. te fi muy teg sama bët tegut sama bët fii ndax parce nit koo xam ne nii avant semaine combat nga versé ay xam nga xaalis boo xam ne nii xaalis bu takku la te grâce à toi parce que Sëñ Tuubaa loolu yombut kara man Samba man du ma ko ñaanal dama koy bàyyi ak borom bi il se borom bi am fay mu fayal ko boppam ba sëñ Tuubaa Mbàkke loolu rek laa am lu ma si wax woo waa Mouride de période bi nan la ñuy waaj bi également keroog ñu ñëw seen kër ñu gis vraiment ministère bi muy monsieur le ministre Yankhoba Diattara def xam ne dañ koy saluer bépp képp koo xam ne amateur ga rek te ngay dund làmb vraiment boo xam ne da nga koy saluer parce que gis nañ keroog làmb ji bi ñu ko poussé vraiment mu ñëw ànd ak promoteur bi muy Sidi Diakhaté production dikk mbëri mu ne mu jàpp mu la mu ko si néew mu dikk jàppalee la ko ci bis bi war na leen ah, affaire bi kan ñoo ko bokk pousse gi jox xam ne joxaat na leen ko pour ngeen mën a gën a préparer waat combat bi. non Yankoba Diattara ñun ñun dañ koy dañ koy dañ koy ñaanal quoi ndax parce que ñun Cees lan dëkk te ñun danoo yàgg a topp làmb billaahi ka ñun danoo yàgg topp làmb mosu gis ba dakaar rek fépp mosu gis mbër làmbam yàqu nga ñëwaat ci këram xam nga di di def geste bu naaj boo xam loolu loolu man mosuma ko gis Yankoba Diattara nag ñun maanaam lii mu def nii ñun. mënut a néew si ñun ay millions lañ ko jàpp barke sëñ mu Mbacké mu ànd ak promoteur bi ñëw suñu kër maanaam jox ma alal ju bari loolu ak cant la cant la li ma la li tax lan moo tax ma ne la ak cant la mooy que ni maanaam kara doomu aadama boo lekkee si ñaxam dërëm rek da nga ko si war a sant rawatina mu yëkkati enveloppe bu bari jox la. maanaam lépp loo xam ne ni du ma ko ñaanal si làmb di lépp loo xam ne nii maanaam bëgg na ko si àddunaam muy lu jëm si doomu aadama yi li ak li jëm si kees yàlla na ko suñu borom defal ndax parce que bëri na fi ay leaders yoo xam ne nii ñu ngi nekk si réew mi te ñun jeunes yi dañuy dundu làmb te làmb képp koo xam ne nii maanaam da nga fi nekk doon autorité da nga si war a dugal sa loxo ndax parce que dafa doon sport boo xam ne nii maanaam mooy dajale jeunes yëpp parce que Sëñ Tuubaa Mbàkke te gis jeunes yi di ndax làmb kon ba Diattara amul lenn luñ koy wax lu dul di ko ñaanal yàlla li mu bëgg moo xam suñu borom defal ko ko ndax parce am na loo xam ne nii yombu décra barke Sëñ Saaliw waaw nit ñi nag xam nga lan lañ gën a mën a bàyyi ba ni xama yaa ma gën a xam ñu taxaw ku nekk yor sa làmmiñ di wax mais maanaam jëf moo yombut manaam nit bu jëfee lu mel nii maanaam ñun ñëpp dañ siy taxaw rafetlu ko te xam ne ñun maanaam waaw lenn rek lañ koy faye ñu bàyyi ba jour ba ñu ñëw ambiance ko lu toog public bi génn après bu liy passé lépp loo xam ne nii dugg na si ñëw taxaw gis ngeen noonu la champion bi waxee gis ngeen boobu ba léegi ñu ngi ci biir waxtaan wi ngeen gis temps bi li ci des bëriwul kon dañuy bàyyi rek nga joxe kàddu gu mujj woo ñi lay jàppale ci bis bi Sidi Diakhaté journée Sidi Diakhaté hippodrome Ndiaw Macodou la la 11 nga fàttaliwaat ko nit ñi parce que date bi dañ koo puusoon dañ koo puusaat le 29 la woon mais dañ koo puusaat ba la le 12 ba le 12 juin bii nii journée Sidi Diakhaté hippodrome Ndiaw Macodou diggante Boy Diakhao Ousmane Gandigal waaw man damay woo damay woo waa Kër Sëñ Ablaye damay woo randu leen damay woo Malick Kayre damay woo Ersan Mbooloo damay woo Cité Senghor damay woo Diamaguène damay woo Mbambara ndax maanaam zone bi ëpp doole si Thiès falaa laa dëkkee waaw di woo ñi nga xam ne ni ñooy waa Ersan Mbooloo waa Muusante je comprends di woo Habib Kane mention spéciale kara man maanaam lépp loo xam ne ni mën naa ko si làmb lépp loo xam ne mën naa ko si làmb grâce a Habib Kane barke sëñ Tuubaa Habib Kane Habib Kane taalibi sëñ Babacar bi maanaam <laughs> daa am loo xam ne yomb des fois damay toog sax mu yëkkati xaalis bu bëri woo ma ngëbal mu ko na ma téel te loolu am na loo xam ne nii nit bu la ko defee rek maanaam te benn campagne rek leen ànd barke sëñ Tuubaa moom itam dañ koy nuyu rek di ko jaajëfal bu baax a baax monsieur Habib Kane parce que vraiment nit la koo xam ne tamit ñun tam dañ fay dem lu bari ci cadre làmb buñ fa demee lamba tax ñu fay dem mais dañuy gis muy jàppale mbër yi bu baax a te ñun ñaare képp koo xam ne da ngay jàppale mbër yi rek maanaam suñ ko gisee loolu noonu suñu xol da ciy sedd parce que ñun tam ci làmb lañ nekk ci làmb la ñuy dund mais tax buñ gisee koo xam ne day jàppale nekk autorité di jàppale làmb rek kooku dañ koy ñaanal bu baax a baax li mu bëgg ci carrière am dañ ngi ñaan suñu borom ci côté politique suñu borom defalal ko Habib Kane. waaw man Habib Kane man Habib Kane man dama si damay waxaat si loolu Kara nee naa la Habib Kane moom nit ku mel ni moom amut mi ngi jàppale mbër yëpp rawatina rawa rawatina man. maanaam moom kenn la si man man du ma ko du ma ko ñaanal dama koy bàyyi ak sëñ Babacar mi nga xam ne nii moom la yaakaar ndax Habib Kane maanaam dafa doon nit koo xam ne nii lom de social la. maanaam du man kase campagne yi danoo ànd di liggéey mais damay jékki-jékki na ko maanaam mbër ba mu ne maa mu bul ma liggéeyanti man nii laay liggéeyee suñ Babacar laay liggéeyal est-ce que kooku dan koy ñaanal xam nga lépp loo xam ne nii maanaam bëgg na ko si àdduna ak ambition boo xam ne mi ngi koy def si doomu aadama yi suñu borom ndax li muy def yombut kara wax naa si woy ba pare mais damay wax si moom à part nit ku la dimbali yëkkati xaalis bu bëri jox la loolu yombut je comprends waaw kooku mention spéciale dama bëgg maanaam Thiès gépp gën ko bàyyi xel ndax parce que nit koo xam ne ni maanaam doxoo sa yitey bopp te jamono ji ñu ngi jéegool de mais ku si yor mu ni sa yëfi bopp ngay dox mais nit koo xam ne ni heure fu nekk yaa ngi dox si soxla nit ñi yàlla na suñu borom taxaw bu baax a baax te doo tiit ndax man maa ngi see ginnaaw di woo ñi nga xam ne ni maanaam ñoo dëkk si ñoom laay ndax parce que ñun ay ndaw lan nekk si làmb affaire yi métti na mais duñ découragé ndax daa bëgg ndax sëñ sëñ soin bu danoon wax naan boo nekkee si yoon wéet wéeti ñimeel te xam ne boobooy bu baax bi mais boo nekkee si yoon doon ndaw mu xam nga mu am nu mu demee rek tiitaatal sa bopp man amul dara lu may ragal ndax taalibe sëñ Saliou wula waaw di woo képp koo xam ne nii lutteur nga dëkk si zone bi di woo sama grand sambaloo bi di ko waat encore une fois di woo ñi nga xam ne nii maanaam mënuñoo ñàkk ñu ñu bañ leen a tudd ku si mel ni Mbambara Diamaguène Cité Senghor Ersan Malick Kayre Randoulène di woo cees gépp est-ce que comprends nga du ma limee damay juum quoi sama grand Babou Gallé encore une fois sama grand building Bàcc Mbow une tonne xam nga waaye kii muusante yëpp ñu ngi leen di woo ñu gën a ñëw taxaw seen rakk ndax man seen rakk dong la mënu ma mënu ma wees lu lul doon seen rakk maa ngi woo ñëpp ñu ñëw jàpp ci fàllu maanaam bu ma limee damay juum yaa ma gën a xam aja jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen fi ñuy nekk ci waxtaan bi noonu rek la ñu grand magal Dioum Dabe ñu bàyyi ko rek mu sànni ci ay gàddu grand magal maa ngi lay ziar. jërëjëf Kara ñu ngi lay ziar di la delloo ziar bu baax di la encouragé ndax gis nañ ni nga taxawoo ci làmbu kees xale nga waane yaa ngi ciy bay sawaar di sant seen waa télé bu baax di sant waa Thiès bu baax Fallou mi champion la Samba Lawbe moom dañ koy gunge comme ni ñuy gunge ay moroomam ndax dañoo bokk nekk écurie benn écurie boo xam ñu naan R100 mbooloo ñëpp ko xam mu nekk fa doon xale boo xam xale bu am jom bu bëgg li muy def bu am courage ci làmb boo am ay ambition nii lii laa bëgg a def bon nag du ñu def leen lu dul di ko gunge di ñaanal sunu xale yi nga xam ñoo nekk zone es mu mel ne Miss Mburu fii de Landing xale yi kii Modou Anta de xale yooyu yëpp yàlla na leen yàlla may ndam lu sedd guy mu la laa leen di ñaanal di leen pousse di leen encouragé xam ne làmb la rek moo Karara yëpp làmb la ñoom ñaar ñëpp ay talent yu génn lañu soo xoolee grand combat bi ñëpp ngi wax grand combat bi waaye kombaay bi moo gën a neex grand combat bi. Mm-hmm. ñu ngi leen di encourager bu baax di leen pousse. waaw xam ni Samba Laobé numéro 2 daa jël ay décisions yi leer moom ndax xale la kee xale la te moom tamit daa jóge ci bunt mu kee Karara génn ci bunt làmb boole leen. kon làmb doo joo xam ne ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am nga ci am nga ci avantage waaye ñu ngi ñaan yàlla sunu borom nag sàmbalaw bi daan ko jël bu set wi ci bu amul benn werante jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen grand magat jum noonu la waxee ñu dalaloon champion bi mooy Sambala bi numéro 2 tey gis ngeen ñi ngi woon fii ci R100 Siri Jaxate la le 12 juillet diggante Boy Jaxaw Ousmane Gandigal waaye am na yeneen combat am solo yu nekk ci biir xam ngeen ni am ni nogoy ak Mor Sarr mi ngi ci biir diggante Sambalaw bi numéro 2 mi ak Karara Junior mi ngi ci biir diggante Fils de Landing ak Sigi Marley ba tamit combat soog waaye bu Tiwaawan ak doomu Taset diggante Aykon ak beneen Malick Niang Junior bi muy combat yu am solo bopp gaynde ak jëm ceeri numéro 2 tamit mi ngi ci biir bis bi waaye di leen jox dig dajee rek le 12 hippodrome Diaw Makodu si di jaxate production moo ñu fa woo drapeau monsieur le ba Yankhoba Diattara jaajëf di jaajëfal waa RTT TV yëpp ah tey sekk lañ àndaloon moo doon seere affaire yi jërë ngeen jëf